Malen di nuyu di nuyu mbokku ci saint yi di nuyu euh, les responsables et les militants yi nga xam ñi ngi nek Alliance pour la République ak benn Bokk Yaakaar au niveau du département de Thiès mais surtout au niveau de la commune de Ndiayène Sirakh alors le, le bilan du président dans le département dans la commune de Ndiayène Sirakh na né euh mën nañ ci wax lu bare bare bare bare bare euh, bi ci ñëk je pense que moy affaire ni nga ko waxee léegi PUDC bi je pense que PUDC li ñu njëkk a rafetlu sax mooy tëgg bi ni ko ni ko président tëggin bi parce que ñun ñëpp on avait remarqué que parce que ñun aussi nous sommes dans l' administration que administration des fois du mën a def lépp te Sénégal nekk na ci benn déficit en terme d' électrification rurale bu xaw a metti on était à vingt vingt deux vingt quatre pour cent bi ñu jël réew mi te yaakaar na nag bu ñu ko noon ci rythme boobu liñ bëgg mooy 60 pour cent de taux d' électrification duñ ko am et que son excellence le président de la république M. Macky Sall am vraiment réflexe bu le programme d'urgence de développement communautaire Il ko wa un dénommement des nations unies muy est ñom aussi ñi ci def liguey bu am am solo parce que le lepp dafa au moment où le gouvernement a dem di liguey dans ses projets habituels mi peut def PUD aussi du doxal bu ko defee bu la jonction dinañ am un taux de l'électrification rural bu am solo mais aussi sur le plan de l'hydraulique Thiès aussi am ci et je pense que temps yi dégg ngeen les jeunes de sera, Sarax génn di wax aussi dafa am lu ma ko bëgg la commune de Ndiéyène en 2012 on était à presque 40 de taux d'électrification Madame, sur les 37 villages de la commune de Ndiéyène 15 ci en 2012 loolu man ngeen ko vérifier bu ñu ko temps man permettre mën naa defal liste village am yëpp au moment où boo demee Touba Toul j'étais presque à 10 pour au moins de 10 pour cent nga dem Fandine j'étais à moins de 20 pour cent yeneen dëkk yi ñu wër yëpp ci noonu lañ nekkoon kon tey bu ñëwee yaakaar naa priorité am mooy fexe ñi nga xam ne dañoo retard ñu mën a combler ce retard là euh, boo demee dans des zones comme Tambacounda Kolda amoon fa commune yo xamné dañu amone taux d'électrification yo xamné ça tourne autour de 5 da nga gis ben commune chef lieu de la commune ba rek moo ci am courant kon yaakaar naa ne boo état aussi da nga wara équilibrer do jël commune bo xamné mi ngi à 40 am ko xamné mi ngi à 50 Il yaakaar na li nga wara a def moy xol ki nga xamné fa am 5 pour cent nga jiim koo indi au moins mu 40 parce que ki am 40 amna lu mu téye donc ñun ci loolu nañ kon ba tax na kon euh, li ñuy wax njël sarax yëpp affaire courant je pense que man d'accorduma ci et d'accorduma ak aussi euh, son excellence l'ambassadeur monsieur le maire Sëriñ Fallou Fall ci li mu wax d'accorduma ci xëy na la fa la fa la fa xaw a juum foofu euh, ci affaire courant bi président def nañ njël sarax courant damay koy fàttali rek ñun ñëpp mën nañ ci teg suñu bët il y a de cela deux à trois ans on a électrifié quatre villages en même temps c'est le village de Mbéwane Bafay c'est le village de Mbéwane Thiathiaw c'est le village de Mbewan Ndorong ensuite le village de Mbouloxteen quatre villages il y a un courant Les village de wax Mbewan fa le deuxième adjoint maire bi kon mënuma gëm président de Foudara. entre 2013 et 2016 on a électrifié ces quatre villages là pourtant on avait un taux d'électrification de 40 Donc, il faut aussi bilan la boo le président am au niveau de la commune de de de actuellement on ngi électrifier le village de Ngogom donc mu a cinq villages donc mën am en moyenne chaque année au moins lu mu dee dee village électrifié au niveau de la commune kon loolu aussi lu président def la en termes d'électrification euh, rurale on a un taux d'électrification rurale au niveau de la commune de qui tourne autour de 52 à 54 pour cent néew na commune yu ko am kon loolu aussi dañ koy président de la république parce que boo xoolee de 2007 deuxième mandat Abdoulaye njëriñ sarax amu ci benn courant benn village bu ñu taal amul njëriñ sarax deuxième mandat Abdoulaye Wade il a fallu que 2012 ñu ñëw ñu commencé waat électrification rurale au niveau de la commune de Ndiène Sarax kon ma jàpp ne loolu aussi xale yi doon def marche na ne euh, euh, lu mu def Ndiène Sarax loo xam euh, aussi parce que nit aussi boo def analyse da def une analyse objective D'accord accord ak nit ñi interprétation bi ci y' a pas de discrimination au niveau de la du programme du genre de développement pas amul discrimination. Ndiéyène Sirakh c'est dëgg la population bi euh, am na benn dayo bi rëy mais quand même il faut qu'on se dise la vérité que Ndiéyène Sirakh maanaam dëkk yi dañu dajaloo. les villages sont un très proches mënoo daw un kilomètre boo daw yaa ngi village. boko comparer ak touba tul nga xamne wala yenen dekk yi nga xamne war man nga daw 5 km do am village kon fofu bokkuñu fofu en termes de population xeyna bari nañ mais en termes d'étendue lolu yaakaar na ngeen sax reuyul enclavement bi ki enclavement bi à l'intérieur c'est-à-dire dama lay bëgg expliquer ni 1 km bo dox ya ngi dox ci village dam nga cenaba cenaba man nga daw 10 km entre deux villages ngeen sax mëno daw 2 km entre deux villages c'est pas possible kon fofu aussi manam priorité bokul deug la aussi soxla nañ am PUDC euh, en terme de route ak côté yoyu mais lo ñu nañ nañ nañ jël don bobu ba paré euh ba tax na kon PUDC bi aussi ñi nga xamné ño nek dans l'urgence ñom nañ ko dañ koy jagalel bu ñu réglé lool ba paré nak inshallah amna yaaka nak ngeen ñew ci njëen sarax parce que gouvernement aussi comme mëna mënatu defandoo lepp lay procéder par palier par urgence ñi gëna soxla ñi gëna soxla ñi gëna soxla euh courant bi wax na la ko légui bi ñuy bi ñuy ñëw en ñun taux bi ñu amoon amul pratiquement commune yi nekk ci à part Ngoundiane commune yi nekk ci arrondissement de Thiénaba yëpp ñoo ci ëppoon taux ñun nekk à 50 à 40 pour cent taux d' électrification rurale Touba Toul nekk à 10 pour cent ñu dugg ci arrondissement bi ne nañ dem yokkal njëriñ sax bàyyi Touba Toul pour man kuy jiite aussi waroo am vision bu noonu da ngay war a mën a équilibre parce que ñu dëkk fee aussi c' est des ay yu nekkan parti socialiste ba tax avance boobu ñu am en terme de l'éducation ñun ñoom ñoo ñoo ñu ko je rappelle que déjà en 89 man sans village c'est en 89 nañu ko en 1989 ah, moo bokk na ci dëkk yi am courant au niveau de la commune de de Ndiène à part Kaba moom moo ci topp mooy dëkk bi njëkk am courant au niveau de la commune de Ndiène Sarax lu ko parce qu'on avait de grands politiciens qui sont du parti socialiste ñoom ñoo faxan doon diggante Christian Valentin fexe ba courant bi ñëw foofu président aussi bi mu ñëwee li man mi ngi ko ciy mi ngi ko ciy def kon foofu gis naa ne daal njuumte am na ci daal ci ñu ko ñu ko analyser yaakaar naa ne euh, demawul noonu te war nañ mën a xolaat les les statistiques côté boobu. alors euh, ministre en tant que way politique nga dëkk ci Ndiéyène Sirakh doomu gox bi euh, législative yi bilan bi na nga ko gisee am tamit njëkkati ay kàddu na sax may sa dafa liggéey contre coalition benn bokk yaakaar. loolu aussi dama ci dama ne dootuma ci wax sax parce que aussi man aussi kenn du ma ñàkkal je suis un grand responsable de parti de 2009 ba léegi 2009 laa dugg ci parti bi ba nga xamee dara du dara laa dugg ci parti bi ba tax na yenn débat yi yooyu yooyu vraiment dama leen dootuma ci wax mais juste ñaari kàddu rek damay rappelé man 2009 laa dugg ci parti bi di président di wut nguur laa dugg ci parti bi kon duma président duma bàyyi président am nguur may yàq nguur gi kon lu jotu kon moo wut donc 2009 laa dugg ci parti bi def ci lu ne nag ñàkk ci sama alal ñàkk ci oto de 2009 à 2011 maa j'étais à Kaolack j'ai servi à Kaolack parce que man aussi je ne suis pas un arriviste dama jàpp ci dara ba pare doog politique donc 2009 mille 2012 maa ngi ci parti bi on est dans l'opposition di liggéey euh, campagne 2012 oto bi ñu doon campagne man maa ko jox sama taxi laa jël jox leen sama taxi ci la yàqu j'ai perdu deux véhicules benn bi en 2012 taxe bi sama frère laa ko jëndaloon bi ñuy campagne ma ne ko indil taxe ñu campagne ci mu yàqu en 2014 ma beneen taxe bi ma jëndal sama beneen frère bi aussi ci la yàqu parce que comme j'étais à Kaolack j'avais deux j'ai deux jeunes frères euh, ñuy liggéey dans l'informel nekk ay chauffeur di dawal ma neen pour lu ma jàppale leen naa leen jëndal ki nekk taxi ma jëndal ñoom ñaar ñëpp ki nekk taxi nga dawal pour que vraiment ñu xaw autonome man ma mën a gérer samay affaire mais ñaari taxi yëpp ci campagne lay làqu donc mais loolu aussi dama ko def parce que Je ngëm la woon ci man gëm la politique du président Macky Sall la won tax motax ma def ko ko parce que man dama le pouvoir dem opposition manam en 2009 j'étais au PDS nek secrétaire général adjoint de l'UJTL de la commune de Ndiène Le secrétaire général ba dem may coordonner les activités de jeunes du PDS au niveau de la commune de Ndiène Abdoumbaou Abdou Mbaw le coordonnateur départemental de l'UJTL au niveau du département de Thiès ñuy liggéey ma bàyyi fa nguur en 2009 dem opposition loolu ñu koy def yombul kon du ma bàyyi ba nguur ñëw may lu ko yàq maintenant ce qui s'est passé aussi nit da ngay wax dëgg te yàlla tax man defuma la politique politicienne je ne suis pas aussi euh, un carriériste politique naa léegi man damaa jàpp ci dara téye ci dara ba pare doog comme politique moo tax aussi ma am sama liberté de penser voilà alors 2017 législative yi est-ce que man nga comprendre à ñeen Sarax ñuy organiser une réunion de Benno Bokk yakar en l'absence de monsieur Diouf c'est impossible parce que ñeen Sarax bu fa APR taxawé mako fa taxawal l'arrondissement de Thiénaba je fais partie des trois personnes yi nga xam ñoo ñëk taxawal APR en 2009 trois personnes taxawal APR en 2009 au niveau de l'arrondissement de Thiénaba man ci la bok man nga imaginer ñuy organiser dara ñeen sax ci turu benno boko yaakar to wowu ñu may sa diouf c'est pas possible comme man aussi fu la moy jaay dakar wowu ñoo ma tok japp sama jamm setan c'est la vérité maintenant après il y a des il y a une médiation yu am je pense que euh, Moustapha Diakhaté wowu na ma dama dem Dakar mu wow ma ma ngi ñew jeen sax ma pourquoi mu non je dois vous rencontrer parce qu'on m'a dit qu'il y a des problèmes là-bas ma non je suis à Dakar mu ne ma kon maa ngi ñëw sa bureau ma ne ko non jorul nga ñëw sama bureau man sama grand nga vous un frère de parti te mag wax ma fi nga nekk ma fekk la fa mu ne est-ce que tu peux venir chez moi mu ne ko effectivement mën naa exposé aussi le problème wax naa ko li ma metti wax naa ko aussi la marche du parti euh, au niveau de la commune wax ko ko vraiment on a discuté et on s'est compris et on a rendu compte au président parce que turu président na mën na ma wooyoon alors loolu bi mu amee aussi vraiment euh, notre frère le camarade Augustin aussi dox ci ay jéego parce que man dama nit koo xam ne du ma wax ci couloir du ma wax ci couloir c'est-à-dire lu ma la bëgg a wax damay jàkkaaree wax la ko su ma aussi pare naa ci du ma du ma du ma wax di làqatu wax di ma non non je ne suis pas je ne suis comme ça je ne pas cette euh, comment dirais-je cette façon de faire là man xaw ko donc ce qui fait que bi ñu toogee aussi man ak Augustin on a discuté waxtaan wax ko aussi man de de vive voix pourquoi euh, ma c'est en ligne? voilà on s'est expliqué après maintenant j'ai repris mes activités je pense que yow tu es témoin Les gens wax ni yëpp témoin nga ci tournée bi je pense que war nga mën image war nga ko mën a wonaat gars yi ñu dem ànd tourner, vraiment def la ñuy def village par village quand même ma wax d'une manière très claire ne leen lii moo ma météo ba ma toog sama maintenant il y a ay nit yu jóg def wax ba li ma meroon lépp ko jóg naa c'est ce qui s'est passé maintenant naturellement les résultats n'ont pas été fameux parce que je rappelle que à Ndiéyène euh, différence de 191 voix la xam nga loolu bëriwul kon tey bu loolu lépp jàllee man li ma itteel tey moo di wax je pense comme je l'ai dit en euh, tantôt dama beaucoup ci ñi samp au niveau de la commune beaucoup ci ñi samp au niveau de la du département et j'ai été dans tous les combats au niveau du département de Thiès Il y archive des benn combat y a des porté nañ ko au niveau du département par rapport à l'opposition par rapport à l'animation du parti par rapport à la massification du parti lu may inventé les archives euh, sont là kon moi je suis d'une légitimité au sein de ce parti là que personne ne peut entacher aussi parce que loolu la yàlla def dama koo ko ma ko mais aussi kenn ne ma ñàkkal fayda man m'a fayda ba kenn du ma fayda bi je me que Ndiéyène Sirah aussi euh, am nañ lu ñu doy foofu ñun parce que boo jëlee résultat yañ fa am tey bu doon élection présidentielle la ci Ndiéyène sarax dañuy dem deuxième tour parce que opposition bi bu ñu boolee lañ am moo ëpp li benn am parce que loolu mooy mooy mooy réalité résultat Ndiéyène Sirah aussi du lu may inventé mooy lu fa am la bu ngeen génnee résultat yi mën ngeen ko gis yéen ñëpp maanaam l' opposition réunie mooy le PDS Rewmi le PUR ñom ñëpp buñ ñu ñoo Benno Bokk yak la am kon nous avons une majorité qualifiée à Ndiène euh nous avons une majorité mais nous n'avons pas une majorité absolue à Ndiène Sirakh maanaam on n'a pas plus on n'a pas plus de 50 à Ndiène Sirakh tey bu done élection la deuxième tour la ñu def kon ñun amna lu doy donc nous devons faire de kon damay wo sama le monsieur le maire ne ko tey suñu combat suñu xex tay moy fexé ba élection yi ñu ñew ñu am plus de 50 parce que l'objectif, moi, dit, chaque commune, a plus de 50%. Si on a plus de 50% dans chaque commune, on va passer au, premier tour. C'est objectif. Quand on a loolu nag il y a un suñu doole ñun ba bi le président de la république Macky Sall avec plus de 50 avec plus de 60 C'est parce que ba d'après les résultats il faut amener les dernières élections opposition est bu ñoo ëpp li nga xam ne moom la benn bokk yaakaar kon foofu xam nga ne kon liggéey am na fa euh, liggéey euh, des na fa. Euh, olof yi nag dañuy wax naan mbéy sa wowu tànk bala ñuy am ay ambition départementale ay ambition nationale internationale nañ fexe ba li ñu kët na jonn maanaam li ñu xam ne moo ñu të foofu ñu fexe ba rek la ko mooy lan fexe ba am plus de 50 pour cent parce que amaguñ ko kon nag actuellement mënuñu <laughs> ay ay responsable local nag parce que nag ay la yëwoon am liguey buñu bu fofa defee foofa au niveau de Ndiène Sarax ba taxna na maa ngi woo maire ñu jublu ci liguey bo fexé ba am une majorité absolue au niveau de Ndiène sara alors buñu wax situation politique wax nga ko say activité wax nga ko légui légui mais buñu wax situation politique au niveau de Thiès ville ak département département bi lan moy ci sa gis-gis mais également commune bi parce que coow moy mooy communal ñu gis ay ndaw di génn di wax ci tout COSER ñii di wax ci seen trou bopp naan am na ñoo xam ne bu ñu leen fi sampee euh, dina mën a indi ndam président de la République Macky Sall ginnaaw génnu Thierno Alassane Sall ci euh, APR. alors loolu aussi li ma ci wax d' abord dégg naa sax vraiment euh, monsieur le maire xam naa foofu la fa juum moom aussi vraiment te jàpp naa ne aussi foofu mooy li muy wax ci affaire Thiès commune. te bala may jall fofu aussi ma ñaan rek mom monsieur le maire ne Macky Sall def nañu njéen sarax def na fa ay village yo xam dañ leen électrifier lolu mom kenn du ko weddi weddi mais mom aussi jox na ko ndomba tank il est ambassadeur itinérant nek ci cabinet président ndomba tank man yosu lolu kon ma japp ne amana yenen couloir yo xam ni limi ñaxtu ni mëna na fa jaar pour mëna saf euh, safara jangoro ji mais man rafetlu lu mu koy waxee ci presse bi daal rafetlu ma ko sama grand la sama frère la sama sama mère la aussi mais man rafetlu ma lu tax mu jaar ci presse bi vraiment di dénoncer yooyu au niveau de la presse. jàpp naa ne comme moom mi ngi ambassadeur itinérant ñu jox ko ko cër muy cër bu rëy boo xam ne ni jox nañ ko njéen sarax te bu ñu ko joxee ça veut dire que njéen sarax gépp nañ ko jox parce que à sa personne personnel nañ ko jox mais il représente toute la commune de njéen sarax ma jàpp ne loolu aussi saga sagam la mais sago njéen sarax la rek te le président n'était pas obligé de am ñu nekk ci département bi amuñu dara je prends le maire de Pout le maire de Pout n'a rien amu dara mustapha sar mustapha sar amu dara amu dara te Pout gis na ñun ñëpp lu muy indi en terme d'électorat mom bu ñëwé te mustapha sar de moo njëkk a ñëw suñu fallu fa mais joxuñu ko dara sëñ fallu bu ñëwee ñu ñoom ñu jox ko delloo ko delloo ko jox ko ndomba tanko kon lolu cër la bo xamni yaaka naane man na ko permettre li mu wara kaas yëpp mu kaas ko dans les règles de l'art jaale ko ci administration bi te xamne président de la république Macky Sall ku fonk kaw gi la ku fonk département Thiès la te lupp lu wax inshallah rabbi dina ko def maintenant nak état aussi ak num mu ay réalité donc mën nañu defando lepp en un seul coup dañuy procéder par étape par étape ma japp né courant bi inshallah allah 2019 dina ñew ma japp né aussi la route la bi ñuy wax non inshallah allah 2019 dinañ ko def lolu ci ma ci dalal xelu marcheur yi c'est vrai que amna ñu ma ci waxtaan. maanaam ñu gënoon def doxu ñaxtu bi effectivement. Mhm. am na ñu ma jot a contacter à Dakar waxtaan na ak ñoom parce que ñu ci bëri aussi am xamuñu li xew waxtaan na la je les ai ce que le président a fait à Ndiéyène Sarax et que effectivement li des am naa yaakaar na fii ak 2019 na fi nekk je pense que waxtaan naa ci ak ñoom maintenant ñeneen ñi je pense que maa ngi def essayer entrer en contact avec eux pour leur expliquer parce que aussi politique aussi da ngay wax li nga xam ne moo mën a nekk ak li nekk nit ñi bu leeral bopp rek. problème du am ñu ngi ciy dox ñu wax te ñu ci bari léegi yaakaar na ne comprendre nañ loolu parce que dafa am défi bu ñu war a relever au niveau de Ndiéyène Sirah mooy fexe ba am une majorité absolue gagné avec plus de 50 pour cent parce que loolu ba léegi moo ñuy moo ñuy moo moo ñuy moo ñuy moo ñuy te foofu ba ci leneen li ci topp aussi loo xam ne ni aussi jàpp naa ne maire bi aussi pour man xëy na defar la ci jublu woon mais waru ko ni mu ko waxee noonu pour man waru ko ne waxee noonu maanaam parce que politique kenn du ci dugal affaire diine non non non Et man dama bokk ci ñi nga dama bravo à nos responsables de Thiès man dama bokk ci ñi nga aussi dañ fi nekkoon en 2007 j'étais membre du parti démocratique sénégalais ma ngi Thiès activé mon frère Abdou mbaw xam ne wax parce qu'on était ensemble à l'UJTL euh, ma xool de sec doon gagné Thiès avec des scores de 80 80 la gagné la commune de Thiès. te booba ñëpp gisoon nañ ablayaat xaalis bi mu cour au niveau du département au niveau de la commune de Thiès mais malgré ça y avait gagné avec 80 pour cent tey ñuy ñëw di ñëw di ñëw ba naan dañuy waññoom kon nga xam ne kon am na vraiment effort boo xam ne non responsable Thiès def nañ ko buñ leen découragé nañ leen encouragé may leen fit yokku leen doole ba nga xam ne élan boobu ñu nekk mën a continuer kon loolu man vraiment man dama naan coup de chapeau à non responsable Thiès parce que xam nañ ne nek responsable politique dans la commune dans un milieu urbain c'est pas facile ñun ñëpp gis nañ Dakar ni malgré qu'on est au pouvoir mais on a gagné avec 34 malgré Ablaye Wade malgré xaalis bi Dakar pratiquement il tournait autour de 30 à 34 Quand cent politique ci ville dafa faut metti par rapport même au niveau de conscience des uns et des, autres et Idriss Seck aussi c'est un leader national qui a ne ni Thiès fi kon du étonné mu gagné fi donc mais malgré que l'unité nationale la Thiès fait femme, mais non responsables vraiment ñi ngi def ay liguey yu am solo man dama len bravo bu len décourager nañ may dolé xamna ñi ngi def liguey bu am solo moi vraiment j'ai beaucoup de respect énormément de considération pour nos responsables de la commune de Thiès parce que je sais que c'est pas facile ce c'est pas évident malgré ces difficultés ils sont en train de faire un travail énorme énorme énorme parce que defal la faut la comparaison entre 2007 et 2000 Euh, e 2007 et 2017 nga gis ne vraiment liggéey am na fi maintenant loolu ci maire wax aussi man de vraiment euh, defar moo ko jubloon mais man pour man politique ak yooyu waruñu ko boole euh, Médina Fall Kawsara Fall ña fa dëkk ay cees nag ay Thiessois nañ ay Thiessois nañ tarixa taxul ñu ànd ak Macky Sall confrérie taxul ñu ànd ak Macky dañoo gëm président Macky Sall ànd ak moom li tax ñu wootal président Macky Sall aussi du ci ay tarixa du ci ay diini du ci leneen jëf la joo xam ne ni président la koy jëf Thiès mu man ñu mën a ànd ak moom mais du ay buñ duggal ci affaire confrérie yu affaire bu ñu ko duggee duñ ci génn c'est même à la limite même dangereux de tenir un tel un tel discours kon nañ bàyyi responsable Thiès yi nga xam ne ñoo commencé liggéey bi ñu continuer loolu di ko liggéey ñun ñoom lu ñu mënul Thiès ñun ñu dëkk ca Ndiéyène Sarax wala dëkk Cana wala mënuñu ko fi parce que aussi nit da ngay wax dëgg te yàlla tax aussi ñi dëkk Thiès di yeewar waa Medina Fall di yeewar waa Kawsara Fall di yeewoo ko waa Jara Thiès lu mu mënul Thiès keneen ku dëkkut Thiès mu ne leen mën naa ko Thiès dalay nax dalay nax nañ bàyyi trafic d'influence bi aussi ñu ngi ci dynamique de victoire di progresser d'élection à élection nañ leen may doole yokk responsable bi fi nekk doole ñu mën a continuer loolu. ñu bu ko gon yaakaar na dinañ dinañ dinañ am ndam mais buñ bëggee def une ingénieur jaxase affaire yi yaakaar ne tarixa wala confrérie mooy régler affaire yi je pense que duñ ci duñ ci génn dañuy yokk xar mi xar mi karaw. lolu aussi ma doon dan monsieur le maire aussi je pense loolu c'est pas un bon discours bo xam war nañ ko mëna tenir té su ma sañ mu mu retiré ko quoi je ne l'ai pas dit vraiment pour critiquer mais comme suñu frère la suñu maire la su jàddee aussi il faut que ñu tégal ko ci tégal ko ci yoon maintenant euh, Thiès c'est vrai man bëgguma def ingérence ci man dama ne légui tay ñun ñi dëkk ñeen sax am nañ lu doy seuk parce que bo gisé sax <laughs> déplacement yi mo def département dama ko wañi parce que Ndiéyène Sirakh am na lu ñu tey boo demee nous sommes la la seule commune boo xam ne à part la commune de Thiès boo xam ne l' opposition est majoritaire en terme de voix nous sommes la seule commune boo xam ne tey opposition bu boole li mu am moo ëpp li benn am yokk ah, benn bokk yaakaar am kon nag loolu kon ñun am nañ lu ñu doy sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk balaa ngaa laax jaay nag da ngay laax lekk kon ñun nañ fexe ba renverser la tendance ci élection 2019 yi nga xam ne mooy ñëw loolu daal man bu amee vraiment dina am lu ma neex te ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy wax maintenant coordonnateur commune oui président de la république mom moo dernier mot n'empêche que nag chaque responsable bu nek ci commune bi am nga droit na suma ma ki moy nek coordonnateur loolu aussi aussi il faut ñu may nit ñi aussi sen liberté ñu am choix comme neex bu la ah man ka suma ma ki kii nek nekk coordonnateur keneen na ma sañoon ki moy nek coordonnateur mais la décision finale appartient au président de la république bi nga xamna tay mo moo ñu yilif ñun ñëpp li wër ba wër moy pour le département on a un coordonnateur qui s'appelle Augustin yoo xam ne ni président de la république moo ko joxoñ ne topp leen ci ginnaaw ñun ñëpp aussi ñu ànd topp ci ginnaaw parce que c'est le choix du président parce que nit aussi da ngay maanaam kilifteen da ngay nangu digal gis nga damay faral di wax ne boo nangut ku la jiite doo jiite genn boo nangut topp toppee na aussi kenn du la topp man ci logique boobu laay dem boo nangut ku la jiite doo kenn boo nangut ko toppee kenn du la topp nit da ngay ku la jiite ba gor nga mën a jiite nungoo toppee Il bu ëllëgee boo jiitoon ñu la topp man loolu laa gëm comme moo fi ne président topp leen ci mais ñun ñëpp nous sommes derrière lui maintenant bu demee ba président sentir na au niveau de la commune war na a un coordinateur, dina ko tànn te bu ko aussi damay ñaan ñu plier et je lance un appel à à mes responsables de la COGER donc qui sont au niveau de la commune de Thiès aussi de continuer à travailler à, à faire le travail de massification et d'animation bi nga xam ñu ko def au niveau de la commune yaakaar na ne loolu ñu doon liggéey bi jeunes yi doon def au niveau de la commune donc je ne peux pas citer de nom mais tous les jeunes apportent ses fruits et je pense que tey bu ñu mënee def résultat au niveau de la commune la jeunesse de Thiès a largement contribué à ces à ces résultats là et je tenais ici vraiment à à les à les à les féliciter à ma qualité de coordonnateur du travail vraiment titanesque qu'ils ont effectué lors de ces élections là moo tax ñu am lu ñu teg di ñaan président aussi jeunes yi nekk ci département yi jeunes yi nekk ci commune bi mu gën leen a jàppale gën leen a dooleel parce que xam jeune kon au niveau des élections législatives au niveau de la commune di continuer continuer euh, massification au niveau de la commune alors très bien mooy sa situation politique nationale bi dafa mel Idrissa Seck mo jëlaat àll bi coow li bëri na diggante déclaration de presse yi Macky Sall ak Idrissa yow en tant que way politique nga xam leen ñoom ñaar ñep parce que bokkon ngeen parti ànd euh, tay la ngay wax ci Idrissa bi nga xam tay mo nek ci bir commune bi nga wax ko légui muy dialogue national. alors ma je voulais juste dire euh, que le président de la Macky Sall a déjà fait ses preuves ci côté yëpp bi mu pouvoir nekk ministre nekk premier ministre il def ay quand même son ascension là du hasard parce que dafa def ay preuve preuves ci état def ay preuve opposition aussi la fa bàyyi nguur dem ci opposition lu kenn poussé ko de mais la fa bàyyi nguur démissionné te démissionné aussi dana bépp ndomba tànk boo xam ne naa ko ci nguur dem bi di fep mu def fa tank tek fa tankam di liggéey yaa ngi ko dégg Vélingara yaa ngi ko dégg Kédougou moom taxat aussi dañuy may courage te dinaa la raconter ben affaire moi en 2010 comme 2011 moi j'étais à à Kaolack de 2003 ba 2011 maa ngi woon Kaolack fofu foofu laa doon liggéey euh, ma duggee ci parti bi fofu laa xamante Augustin des fois tey gëm naa ne am na loo xam ne ñun liggéey nañ ko ci parti au niveau de Kaolack chaque 18 heures dañ doon ànd di wër Kaolack jël ay responsable yi am ci eh, parti man Augustin Tine ça euh, waa Kaolack xam nañ lool man mi dem naa ba diriger fa sax les jeunes de Benno Siggil Sénégal daan na leen coordonné au niveau de Kaolack parce que on était tellement actif à Kaolack chaque 18 heures dañ doon wër responsable yu bëri ngay dégg tey moom moo leen dugal ci parti bi benn jour dañu dañu dañu dañu dañu dañu kaw dañu jógee Kaolack ñëw Thiès fi réunion réunion après le euh, le lendemain muy muy romb sama village di ma yóbbuwaale Kaolack il faisait presque deux heures du matin bi ñu ñibbi Kaolack moi j'étais tellement fatigué ma je me plaignais quoi vraiment à à l'intérieur de son de son véhicule ne vraiment affaire yi fa mais vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu mais non mais fan nga dégg président mu ne ma mën ne ko maa ngi ko dégg boor yi xaw Tamba ku naa mu ne boy il est à Tamba te balaa jóge Tamba lay def commune yëpp te bu demee fa nit ñi fanaan lay fanaan kon nous on n'a pas à se plaindre et depuis lors aussi vraiment aussi am lu am lu mu ci man ma courage parce que vraiment c'était très, fatigant di quitter voilà tant tant que jeune mm. chaque week-end nga une Thiès politique bëgg a ñibbiwaat kaolax bëgg a liggéey da ngay egg kaolax ay 2 h du matin 3 h du matin bëgg a 7 heures bëgg a demaat bureau parce que comme j'étais dans le secteur euh, médical nekkan dans un laboratoire d'analyse xam nga nit ñi dañuy teel a ñëw mhm. boo jël dara des fois na naa la doo ndékki mhm. te boo ndékku da ngay teel a ñëw jëlal la donc ce qui voilà ce qui fait que yow comme yow da ngay def les prélèvements da ngay def les mhm. a ñëw pour mën def loolu ce qui fait que boo yëggee 3 heures du matin Kaolack daanaka kii bi nga wàccaat ay 18 heures c'était un peu fatigant mais quand même euh, ça m'a un beneen affaire boo xam ne ni aussi daf bi ñu président de recevoir la veille des élections euh, on était à la présidence jusqu'à 1h du matin. 1h du matin, là, c'était un mardi. Mais le président, nous il faut nous parler parce que demain aussi, il y avoir un conseil des ministres. Aussi, vraiment, je me suis dit que mais, tiens, qui est vraiment Imaginez que en réunion à 1h du matin. Vous avez un conseil des ministres à 8h à 9h, qui est un président de la République ça montre que vraiment am na fait mu teg on sénégalais et lolu en tant que jeune daf ñuy may courage daf ñuy may motiver man vraiment c'est un acte bo xam man marqué vraiment mu jógee ci ci ci ci ci ci audience ba taxna amna Dieu est juste aussi Dieu yalla mo y a juste ñep yalla mo y a juste ñep xamna le liggéey nous liggéey xamna ño mot askan mi nañ fi nekkal xamna ñi fi nekkul askan mi te comme Dieu est juste te Yalla moñu gëna bëgg askanu yëpp amna yaakaar le président de la république va gagner les élections dès le premier tour quel que soit nak maintenant solution yi mën am mais gëm na né il va gagner les élections dès le premier tour parce que japp na né mom mo gën ci askan wi maintenant idi man limu ko bëgg wax rek moy na xamne président xamul défaite. président de la république Macky Sall c'est l'homme du premier tour loolu mom dama bëgg ñëpp Sénégal yëpp xam ne le président de la république Macky Sall c'est l'homme du premier tour directeur de campagne la nekkoon en 2007 le président de la République a gagné les élections dès le premier tour malgré tout ce qu'il a malgré tout ce qu'il quoi mu bëri woon kon mais les mêmes def xam ko na fi jëm opposition deux ans fekk fi a eu talonné jaar deuxième des élections avec 26 et quelques pourcents. Il ñu ñëw avec 60 pourcents. kon en matière d'élection élection yaakaar kenn du ko jàngal président président euh, li wara a def pour gagner xam nako responsable aussi nek ci gox goxaan li wara def pour gagner xam nañ ko kon aw mu ci inquiétude donc ñun nañ nek ci liguey bi rek idi kay mom moñu mo wara wax nit ñi yan élection la massa gagner au niveau national je rappelle qu'en 2007 amana na 15 et ci élection yi mujj c'est retrouvé avec 7 je pense que dama jaxal lool mu jóge 7 bëgg dem 20 wala 30 pour cent fu koy jëlee jaaxal na ma donc euh, surtout ma comme Thiès gi maintenant la moo tuut a gagné yaakaar naa ne bu bëggee gagné def euh, euh, réew mi dina ma jaaxal lool lool la maintenant il faut que nous qu'on se laisse divertir parce que gars yi du ñu divertir ñun dynamique bi ñu nekk di inauguré président suba mi ngi jëm boore Kaolack Fatick di inauguré nañ continuer ci dynamique boobu liggéey pour Sénégalais yi teg seen bët li nga xam ne mën na ci def da ngay jël les bourses de sécurité familiale pour revenir à Ndiéyène Sarax mais tey gisuma commune beaucoup bourse de sécurité familiale man bu ma mujjee def décompte bi on était à presque 800 personnes bénéficiaires d'une bourse de sécurité familiale waaw le kon président am na huit personnes yooyu tey boo demee leen président deful dara njëen sarax mais nous avons deful ndànk na lay mbéj ñooñu boo demee leen président deful dara njëen sarax te chaque trois mois ñu mën a am vingt cinq mille moo ñooñu nous, deful ndànk booy dem dooy forcé tànk ñooñu kenn mën a gëm na leen président deful dara njëen sarax quand même on se dit la vérité aussi hein on se dit la vérité dëkk yi am courant les cinq villages à ñu fa defagul ñooñu mënoon a mënoon le président def dara kon président a fait quelque chose te 800 personnes yow goo mën a Augustin am na ko goo mën a en Diagne am na ko goo mën a ñeneen am nañu te pourtant donné à à à à Ndiène sax loolu aussi acquis la au niveau maintenant président aussi dañ koy ñaan mu dolli dañ koy président de la république son excellence ñu ngi lay ñaan au niveau de Ndiène Sarax nga dolli ñu courant dans dolli ñu aussi ay ay ay route yo xamné surtout la route qui va de Khombol à à à à Ndiène sax parce que dinañ mëna a dimbali au niveau de la campagne. maintenant li nga bëgg def attention li ma bëgg na aussi wax déjà vraiment j'y tiens président de la république gouverne état andoul ay poto Ndiène sax ba pare ko et ça je tenir vraiment à à le préciser président état andoul ay poto Ndiène sax ci veille élection législative yi ñu pare mu délo ko lolu vraiment ku ko wax da ngaa monsieur le maire avec tout le respect que vous ma faire, parce parce que suñu maire la suñu vraiment suñu grand Nous, c'est une stratégie ñoo indi porter poto yi Nous ñoo ko mais l'État a fay porte ba de loi parce que si aussi le nous ko mettre en mal avec ces villages avec la population là en 2019 Nous, avons ñoo porte. ba pare delluwaat seni poto mais poto yooyu ñëw daal damay leeral askanu njën sax ne état amu ci len len len len lum ci laale état andiwutu poto état yobu ci poto ñoo andi woon seni poto teg ko ci buntu commune ba ba élection yo jeexee ñu jëlaat poto yóbbu oto ba andi poto ya si seen poto la oto ba yóbbu poto yo ya aussi seen poto la xaw ma nag luñ jublu woon mais daal seen poto moo andi ay poto def ko jal ko ci buntu commune commune bi seen oto aussi moo jëlaat poto ya yóbbuwaat ko fa mu ko jëlee woon maanaam beneen société moo ko indiwoon noo du beneen société. dama ne la ñoom seen stratégie de campagne la woon maanaam comme dëkk yi dañ doon laaj courant ñu ne xëy na bu ñu andee wutee ay poto teg ko ne leen poto yaa ngi nii dinañ ñu wooteel maanaam nañu loolu moo fi ne dañ ko wax te aussi maanaam stratégie de campagne la woon comme dëkki yi dañoo bëggoon courant am na ñoo xam ne bu ñu am courant duñu woote ñu jëm ñoom wut seeni poto xom fu ñu ko jëlee nag ne waa na dëkk yooyu poto yaa ngi nii su ngeen ñu wootelee semaine ba ca topp nañ samp mais dëkk yi gëm gëm loolu woote mais bañ demee ba élection yi jeex dëkk yooyu gisaat ne poto yi yañ jëlaan foofu jëlaat nañ ko yóbbu kon ñoom ñoom ñoo war ak nit ñi fañ jëlee poto mais du poto état état bu dee indi poto Senelec lay wut poto wala mu leneen lu indi ay poto mais ñoom ñoo jëlan seen i poto indi pour naxe ko askan wi pot élection yi jeex na jëlaat nañ ko yóbbu kon loolu aussi nañ maanaam politique aussi jarut yenn yi man du ma nit koo xam ne nii aussi damay wax ci couloir yi wala may wax lu ma gëmul je dis les choses ni ma ko gisee ni ma ko déggee laa koy waxee donc du ma du ma du ma ànd ak yow ba tax du la wax dëgg du ma la contre aussi ba tax su ma la euh, su ma la waree wax lu baax ci yow ma non non kii daal dama koo contre vraiment lu baax ci yow déedéet moi je ma la contre contre contre contre contre bu wax lu baax jotee ci yow dama koy wax. Luma la jege jege jege aussi si je dois vous dire la vérité dama lay wax la vérité parce que man je ne suis pas un carriériste politique politique dama ci dugg pour jàppale askan pour jàppale sama gox jàppale gi ma jàppale askan wi jàppale gi ma jàppale gox bi Je jërulu ma fenn jërulu ma wax lu dëgg jërulu ma aussi de transiger avec mes je ne vais jamais transiger avec mes convictions politiques gis naa man président maa ko tànnal sama bopp ne dama koy jàppale sur la base de son programme parce que man dama gis waa dugg àll bi li qui courant qui parce que nous tous nous sommes des rescapés du système man gens nit laa doon àndal di mat sur ces 100 personnes là il y en ci qui ci mais ces 90 là qui n'ont pas réussi ce n'est pas parce que nous xam-xam mënuñoon jàng mais dans la plupart des cas c'est les conditions qui l'ont poussé à abandonner les études. les conditions sociales les conditions sociales poussé à abandonner les études parce que da nga doon jàngi bëgg nous dox 5 kilomètres. dem 5 km ñew bo ñëwé wara jang amo courant bo jangé ci lampe pétrole ngay jangé wala ay bougie hein ñu ënd nga am BFM fa nga nek amul CM ñoo ni la ville nga bëgg nek ci kër go xamni xamul leen tous ces conditions la yu ñu on fait que pratiquement ñu bari nañu bay seen jang voilà ñun loolu mo ñu xeyna na nañ tout le minimum qu'il fallait pour mëna jang kon nak loolu président ñëwee bëgg éradiquer loolu loolu ñun ñu dund ko yaakaar na moo tax ñu dug diko jappalé et inshallah rabbi fek mi ngi bëgg dal

kon loolu aussi jàpp naa ne président mën nañ ci war nañ ci mën a jàppale le lycée mais aussi le CM de Kaba vraiment c'est une urgence vitale pour la population de Ndiène Sarax ñu ngi ko ciy ñaan di ñaan les autorités académiques di ñaan aussi le ministre Augustin aussi lu mu ci mën aussi mu def ko parce que aussi nit xarab daal baaxul xarab baaxul euh, Augustin jàpp naa le li mu war a def mu ngi koy def parce que boo xoolee en terme de réalisation aussi li am ci yeneen communes yi amut commune parce que nous aussi da wax de commune Fandine. Mané, je jëlal micro vérifier en termes d'infrastructures sociaux de base les am qui viennent communes entre 2012 et 2017 une commune de Fandène et pourtant c'est lui le coordonnateur du département et pourtant c'est le ministre des forces armées L'homme le président de la république deux fois par semaine en conseil des ministres et en conseil de défense non dafa fait le tour. du département xol est ce que yam ci ñen commune amna fandel amul en termes d'électrification en termes d'hydraulique en termes de piste et cela confirme sa loyauté donc lolu aussi amna lumuy woné parce que man dama la man duma nak kenn gis na yalla te gisuma yalla man kenn demul ma fenn kenn demul ma fenn mais nak wax deug joté dama koy wax te yalla tax suma la waré wax deug dama la koy wax ci côté bi wala ci côté balé lolu aussi c'est une réalité bo xamni aussi ñun ñep gis nañ ko kon mais nak aussi aussi mais wax la man la ko jox sa kay jox donc discrimination amu au niveau de la du département tous les maires sauf Moustapha Fassad, ku président jox maire yi département yépp pourtant amna depuis 2009 Ils ba ci dara te lepp lu ñu joxé muy ndimbal du jëm ci maire dañ koy jox am na maire yoo xam ne ni dañuy jël ci li leen président jox ndimbalu tabaski wala ndimbalu korité jox yeneen responsable de base yi fi nekkoon maanaam may jox leen ci ñoom tamit jox seen nit mais am na maire yoo xam ne tey bu leen lu ñu leen jox korité jox leen ko tabaski jox leen ko tamxarit responsable de base yi fa nekkan du leen ci jox dara dañ koy dégg nii rek loolu aussi du loo xam ne nii aussi du rafetul loolu aussi maa ngi ciy ñaax la ministre Augustin loolu aussi nay wax président aussi mu vraiment mën ci saafara parce que dëgg la ñoom ñoo yor mbooloo mi d'accord nañ ko parce que politique aussi mbolo la mbolo la ak ay ay ay ay idée nak parce que politique aussi mbolo la ak ay idée parce que le plan Sénégal émergent ay idée ko nas te buñ fàtte ne ci dëkk bi ñi dul politique ñoo ëpp fouf ñuy politique te ñi nga xam duñu politique aussi li leen di mëna convaincre moy tek ay réalisation yu palpable te réalisation yooyu noonu su xel ak xalaat mo koy nas kon politique mbolo la ak xel ak xalaat nañ jël ñu am mbooloo boole ko ñu am ñu am xel ak xalaat bu ko defee parti bi mën avancer réew man mën avancer. kon aussi responsable yooyu fu nekkan aussi vraiment di liggéey nañ leen bàyyi xel parce que amuñu problème ak maire yi maire yi ñëw nañ ñooy coordonné d' accord waaye nag ñoom cër ba ñu war a am nañ ko am. mbaam gàtt na meeg mais nag ci jur la bokk kon bu ñu joxee tabaski bu ñu joxee korité bu ñu joxee leneen ak leneen bu ñu joxee maire yi cent mille francs nañ jox ñeen ñi vingt cinq mille maanaam cër la. mais doo jël cent mille francs yëpp jox leen ñeneen ñi aussi ñi ñu koy dégg rek ci nit ñi man pour man loolu rafetul vraiment injuste la boo xam ne ni aussi yaakaar naa ne je lance un appel à mon frère Augustin mu wax président nañu ci ndimbal li ñuy joxe vraiment nañ ci sóoraale gars yi en tout cas ñi fi neewoon démb moom vraiment am nañ ci bëree bëree bëree bëri xamatuñ loolu ci lu mu nu mu nu mu nu mu demee te loolu yaakaar ne war nañ ko yar nañ ko mën a mën a mën a mën a mën a mën a corriger bu ko defee élection 2018 ñun ñëpp ñu ànd falaat le président de la république au au au premier tour parce que ñom ñep maire bu nekk amna ci lu am. te tay au niveau des ñi nga xam ne ñoo fi ci ben responsable bo xam ne dafa entre 2009 ba 2012 buñ ko jox ndomba tank buñu mëna wax dans le département gis nga bo gisé wax ma amul dans le département de Thiès à part le ministre cër yi fi génn yëpp maire nañ ko jox ñu nit ñi yéene leen ko nag parce que vraiment ay jambar nañ dañoo bàyyi parti ñëw ci ñëw ci parti kon jaaru na président cërale leen ñun ñi fi nekkal nag dem ak bëtt dem ñun ñooy muñ ñun ñoo war a muñ parce que ñoom dañu ñëw pour jàppale ñun ñi ñëw duñ jàppale nag ñun dañuy muñ bu dee benn la ñu jox leen ko ñun ñi fi nekk ñu muñ te loolu yaakaar na ñun ñëpp nangu nañ ko maintenant am na commune yoo xam ne amul problème ñi ngi ñi ngi ànd liggéey damay jël commune mel ni par exemple Kër Moussa moi j'ai beaucoup de respect pour ce pour ce maire là vraiment j'ai du respect et de la considération pour lui. merci oui ah oui ça je le dis en toute sincérité en toute franchise parce que nee la man ne kenn nekkul ma fenn damay wax dëgg rek j'ai beaucoup de respect xaw ma xam na xaw mais j'ai énormément de respect pour lui. par sa manière de manager dans nah, sa dans sa commune et ya, par son leadership parce que loolu aussi dafa am solo dama ko fekke ben réunion gaay yi ya waaw maire bi tak comme ya fi ne yaay gagné gagné gaay yi lu bare bare nag parce que limi indi en terme de poids électoral <laughs> ñu ko indi bëriwul goo mën sax ne ko ñu ne ko yaay jitu mu non ma man damay andal fi nekkan xam nga loolu vraiment esprit de dépassement ba pare mu jël ñam fa fekkon ouf leen lu def wax leen lu def and ak ñom defandoko jël ay cër sax yoo xam ne moo ko mooman jox leen ko loolu assurance lu rafet la te nit nag bu defee lu baax man ku def lu baax damay toog ci média bi di ko wax waaw man ku fi def lu baax wax ko parce que aussi man noonu lañ ma formaté man du ma wax ci couloir du ma wax ci leneen loolu muy loo xam ne nii vraiment lu rafet la moo tax j'ai dit à mes amis yi ñuy nekk foofu ñoom Gabriel ne leen maire bi aussi bu mu leen gën a gore parce que àdduna amul solo politique amul amul solo vraiment àdduna amul solo donc bu mu leen gën a aussi wan leen ko une disponibilité vraiment mat met nekk leen à sa disposition parce que aussi war na leen aussi man dama ñëw pour ànd ak yéen liggéey dama ñëw pour boole ak yéen liggéey loolu nag bu la ko nit defalee yaakaar naa yow aussi da ko war a mën a monter une loyauté je pense que loolu aussi nañuy xaar ci maire yëpp ñu oof ñu fi nekk nii yëpp ànd ak ñoom liggéey pour ñu mën a jox président mais bu fekkee da xaaj fii xaaj fii souvent problème lay am rek te bu ñee demee président ñëpp la soxla ñëpp ñëpp ñëpp la soxla ñi am majorité muy maire ak ñi nga xamne amuñu majorité ñepp la soxla parce que élection nationale lañ élection présidentielle lañ jëm nañ and ñepp ñi fi nekkat am nañ xolu muñ muñ domba tanki ñu bayé ko ñom kon nak nañ ñomit nañ mëna jël ñepp ouf leen and ak ñi fi nekkan liggéey bu ko defee nak ñu gagné buñ gagné nekk président de la république mooy xol mais ñun man da tay sama objectif man ne ko fi xuloo ko xex kuma attaquer aussi c'est important ceci kuma attaquer dal na ba di après 2012 après 2012 moom ku ma attaqué naa la naa naa naa la tontu parce que xam moom ku ne xam na ne man. après 2019 après 2019. parce que ku ne xam na ne man euh, sama làmbañ amul sama mais nag dafa am objectif bu ñu jëm muy fexe falaat président de la république en 2019 bu ñu ko falee ba pare nag maintenant euh, ñu mën a jublu ci lépp yi fi daal wax sama mooy fexe nañu falee président bu président léegi nag après mais dootoo ma dégg ci ay coow ay histoire ñi ngi liggéey. maintenant parce que bo nekké ci mbir aussi dang ci jang dara amna action yu ñu doon def ko ñëw dañ yéen sax gissane nañu en terme de résultat c'était pas rentable karang karang fi wër ñoo non c'est pas rentable parce que dañu am particularité au niveau de Ndiène sax ñun dañu am une un, euh, un électorat jeune te jeunes yooyu yëpp presque 80 ñi à Dakar des fois dañu doon joggé Dakar ñun ñëpp dem kër ga di réunion fofu buñu paré andal ànd je me suis dit à un moment pourquoi comme ñom ñi ngi Dakar on va se réunir régulièrement à Dakar mais régulièrement on se on se réunit chez à Dakar ñu toog waxtaan bu ñu amee benn événement boo xam ne nii man mënuma dem parce que dama am ay contraintes ñi nekk ci dëkk ba ñoom laay yónnee jox leen li ma leen jox ñu dem ci événement bu dee jàng la wala bu dee dëj la ñu dem teewal ma maintenant de temps en temps nag bu ñu ko permettre ñëw dëkk ba toog réunir ba pare nag di nemmeeku nag nit ñi lu xew nit ñi li leen mën a jàppale ñu jàppale muy étudiants yi kuñ ci mën a jàppale ci ay ticket jàppale la ci kun ci mën a jàppale pour nga am une un stage dans une entreprise ñu jàppale ci loolu lañ ne semaine bi rek am na ñoo xam ne lijjanti naa leen stage bañ commencé stage ñeneen ñi su ma leen mën a jàppale ci ay ay ay ticket bourse ma jàppale leen loolu lañ mën bu xew ndëj ndëj amee ñu dem buñu mënta dem yónnee bu leneen amee buñu mënta dem aussi yónnee e di déggoo gars yi régulièrement ñu ngi ci liggéey boobu la def vraiment en toute discrétion en tout discrétion parce que liggéey moom jërul coow jërul wax jërul kii ñu yi di rassembler nit ñi di waxtaan te yaakaar naa loolu moo moo li nga xam ne moom moo moo moo mooy li nga xam ne moo gën am nañ yaakaar ne en 2019 dina porté dina porté dina porté euh, ses fruits donc euh, loolu daal laa laa am ci question boobu. très bien mais Maïssa est-ce que mën nañ def rek xam naa ni temps bi jeex na benn euh, kii bu ndaw rek parce que bu ñu xoolee ci 2016. 2015 2016 amna na liggéey am solo boo def ci biir département de Thiès dem à la rencontre des maires des communes ak euh, COSER yi nga xamné moy biir département bi liggéey bobu dafa melni amna amna na am lu mu waaw loolu amna lu mu parce que ñun dañ doon def li wax animation politique on a fait pratiquement le tour du département commune bu nek dem nañ fa waxtaan ak maire yi waxtaan ak jeunes yi animé parti bi bu opposition bi attaquer ñu répliquer mën a fësal les réalisations du président de la République loolu yaakaar na ne. journaliste xam nañ ko responsable Thiès xam nañ on a fait le tour du département def le tour aussi des chefs religieux référendum bi def nañ ko parce que am na lu ñu dugalañ ci bopp chefs religieux yi on a fait le tour des chefs religieux jiim leen a expliqué ne référendum lii moo ko tax a jóg lii moo ko tax a jóg mais li gars yi doon wax affaire ngóor ji ne yooyu taxu koo jóg loolu yaakaar naa ne def nañ ko maintenant dama ne léegi ñun loolu nañ ko commencé ñun dañ am luñ doy nee la yéen sax la coalition Benno Bokk Yaakaar en terme de de voix de suffrage est minoritaire. minoritaire waaw da ngay jël élection deux ñu génn nii. boo jëlee li réew mi am li PDS am li PUR am moo ëpp li Benno am. waaw kon foofu bu doon ele élection yi njéen si rek la yem kon duñ jàll premier tour. kon nag léegi on doit euh, quand même ñu accentuer. concentrer les forces concentrer les forces au niveau de Ndiène Sax fexe ba en 2019, ñu renverser la tendance yaakaar na bu maire bi joxe li mu war a joxe man ma joxe li ma war a joxe yaakaar na ne mën nañu gagner avec 60 et je rappelle que depuis 2012 ba léegi on a jamais gagné avec plus de 50 à Ndiène Sara malgré que maire bi ñëw na aussi am na lu mu indi quitté nañ ci li amoon vraiment on sommes à 45 et 80 mais l'objectif c'est de gagner avec 60 70 loolu aussi dama ne la moo tax ma ne la dañuy gën a mettre l'accent ci foofu parce que bala ngaa laax jaay da ngay da ngay da ngay laax lekk ba pare. li nga yor mënuloon na kët na jonn tëla nga dem di pêche ji feneen kon may ñaan aussi monsieur le maire nañ lijjanti ne sama commune ba pare man ak moom yëpp fi mu ne nii tey mënaguñu am benn ambition départementale ni benn ambition nationale internationale parce que notre coalition est minoritaire dans la commune de Ndiéyène en terme de voix kon nag loolu lañu war a mën a lijjanti ba pare bu ñu ko lijjanti ba pare nag ku nekk fa nga ami mbokk fa nga ami xarit nga mën ko def ñun aussi en tant que responsable jeune ñu continuer défendre le président de la république vulgariser les réalisations du président de la république dans les radios mais aussi surtout dans les radios communautaires fexé président li président def nit ñi xam ko je pense que rôle bobu aussi duñ ko wacc dañ koy dañ koy dañ koy continuer parce que moy li nga xam mom ñi gëna jappelé jàppale en en en en en 2019 kon lool day firi nit pare nga pour liggéey ak euh, le maire Fallou Fall non man awuma problème dama lay wax ben affaire en 2014 biñ démé élection mom mo gagné une semaine après nañ ca teg ma dem seeti Augustin ne ko li ñu def tay modi fexé bañu gagné ñew ci parti bi té bëss bokay def commencer sama commune man lii boo ko laajee Augustin na la ko wax xel ba ñi gagné les élections 2014 ñu ñëw rejoindre ruñ te bu ñu koy def commencé leen njéen sarax parce que loolu moo ñu may doole nous nous sommes l'avenir de sa parti nous sommes l'avenir de sa parti. l'APR nous sommes l'avenir de l'APR kon képp kuy ñëw ku ñuy kuy jàppale président Macky Sall pour mu am deuxième mandat pour mu gagné mais ñu ngay jàppale man dama jàpp ne képp kuy ñëw pour jàppale président pour mu am un deuxième mandat pour mu faluwaat man ngay soo bëggee sax ma tëdd nga jaar sama kaw jàll bañ gañe loolu moo amu ci problème ku mu neex daal ñëwal ma tëdd nga jaar sama kaw bañ jàll. très bien ba fexe l'essentiel daal qu'on gagne les élections de 2019. Mm. parce que bu la ñun. ñun les jeunes officiellement le 20 euh, février bi la inscription ci que am ngeen stratégie bu ngeen waajal. loolu aussi yaakaar naa ne ñun ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy wax parce que man aussi damay jël toujours les devants. moi fexe ba nit ñi am ay kayit ñi bindo loolu aussi ñu ngi ci di jàppale nit ñi parce que nous sommes dans un monde boo xam ne ni rural nit ñi amuñu moyen donc ñi ngi fexe ba effectivement nit ñi am kayit ba bu ñu ubbee élection yi ñu mën a yokk suñu au niveau de la commune de Ndiène Sera mais aussi yokk ko au niveau du, du du département et de la et de la commune fexe ba les primo votants là yi nga xam ne dañ naan habitu dañoo am habitu voter opposition bi ñu fexe bañ voter luñu te loolu nag la dox ak wax la politique du leneen lu dox ak wax mon frère Abdou Mbow la koy wax ne politique dox ak wax la mais il a raison politique dox ak wax la du leneen dem ci nit ñi ñu lay gis di la dégg ba fexe ba yow li nga xam ne président def na ko en terme de réalisation wan leen ko wan leen fi président jëlee réew mi ak fi réew mi nekk tey ak fi nga xam ne fas na ko yóbbu réew mi yaakaar naa loolu bu leeree rek carte gi leer. lolou bu leer rek yaakaar naa ne élection yi ñëw doxantu lay nekk au niveau national mais aussi au niveau du du département de Thiès am naa yaakaar ne dañ koy gagné ñu ngi koy gagné waat daal en tout cas je lance un appel à tout le monde pour que ñun ñëpp ñu soudé wu ànd bokk ndey bokk baay fexe ba élection yi aussi ñu gagné ko te toujours bu ñuy wax rek ñu tenir un discours positif bu ñu ŋàññ kenn bu ñu xeebal kenn la ma yor bu ñu xeebal kenn la ma yor ku ci nekk man bu doon wenn carte sax mën naa def la différence bu ñu xeebal kenn la ma yor ki nekk la nga yor nañ la ko téel fonkol la ko

day bax aussi nga ñew leral tuuti nit ñi mëna xamné effectivement li ak li ak li ak li mo fi am au niveau de ngien Sarax mais aussi au niveau de département li fa président def mu ngi ne fang lu ñu nëbbu ku xol di nga gis waaw ku xol di nga gis kon foofu sur le plan là bilan am na fa mais nak ñi ngi ñaan président mu doli président de la république Macky Sall ñong lay ñaan au niveau de ngien Sarax nga doli ñu en terme de village à électrifier mais aussi en terme